asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu eh, mbokk yi ñuy seetaan ak di ñu déglu ñoo ngi leen di nuyu lu bari te di leen jaar eh, di àddoon nag sunu kàddu fii ci résidence Cheikhul Khadim di kër sëriñ Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasoul eh, li ñu fi dajale tey nag dafa mel ne jotaay bi wax na boppam mooy fedd li ndigalal sëriñ tubaa li nga xam ne da koo dénkoon Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridine muy ndogu mu njëkk ko tàmbalee nag ci bi nga xamee ne sëriñ baa ngi Jurbel ci Boqaatul Mubaarak en 1912 mu bind lettre Cheikh Ibrahima Fall ci digal ko mu toggal ko ndogu te booba Cheikh Ibrahima Fall mi ngi Cees 1912 boobu la ko Cheikh Ibrahima Fall tàmbali bi sëriñ bi yónnee lettre bi Cheikh Ibrahima yër ko sëriñ bi daf ko wax ne ko gannaaw nuyoo bi dafa am gan gu muy séentu na ko séentul gan gi. na ko gàttandul gan gi na ko ganale na ko gunge mag ñëpp yéemu naan ne daal gan gu sëriñ bi fonke nii gannaaw moom amul woon lu dul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam taxoon muy wax ne mahat mahabatiyal muxtaari sayidina xubbil maganiya wal ahlina wal walada Cheikh Ibra Fall ne leen waxi sëñ Bamba kat maa leen ko gën a dégg li muy wax mooy weeru koor mooy gan gi téen ba mu yàgg mu ne a doom weer waa ngi ci ñaareelu asamaan tey li séenu bu njëkk waaye du feeñ tey suba lay feeñ waxande ñenn ñi ne ab këll teg ko daan ne lu waaye am na ko ci def ndax ndogu li ma Serigne Touba di toggloo bu ngeen bindee ndogu deel keef hazaqeer lay doon di di ñaar fukk ak juróom-ñeent mu ne doom ku ko woor ba koor gi jeex looy am ñu ne ko weeru koor bu ko yàlla nangoo nga am weer wu ñu nangu mu ne Ibra Fall ak waa këram xeeb nañ loolu sëriñ Serigne ma de nee na ndogom yii ma koy defal bis bu ne maag sama waa kër. defal nanu ko muy weer wu yàlla nangu bu weer wi jeexee ñu am fan weeri weer kon defe naa ne ba diine sosoo ba tey bonus bu toll noonu ci weeru koor Cheikh Ibrahima Fall la ko sëñ Touba ma sa defal ndigal loolu nag la nu fedd li ànd ko di ko def ñu bàyyi ko nag ci ëttu sunu jëwrin sunu kilifa Serigne Cheikh Fall Mbawar mu ànd koog magam ci ëttub Cheikh Momar Talla Fall muy Serigne Abdoulahi Fall Ndar ñu gën koo xam ci Serigne Abdou Rokhaya ñu ànd liggéey bi ba bisu koriga di ko liggéey di ko jébbal ki nga xam ne moo fi nekkal Serigne Touba loolu mooy suñ jéeg ak tey ñu ànd kook mbooleem cheikh yi kër gi ànd kook mbooleem taalibe yi ànd kook mbooleem mbokk yi ak soppe yeeg rak yi loolu mooy suñu teewaay fay tey fii ci kër Serigne Touba ndax ndigal lu tab jógee kër sañ tubaa tabbi kër Cheikh Ibra Fall sami'na wa ata'na la gannaaw buñ ko déggee rek jëfe ko te incha allahu rabbi du laal suuf mukk ba bañ koy jébal borom jërë ngeen moom sëñ Aliou Fall Mbawar moom maam Cheikh Ibra ñoo ngi nii teew ci kër sëriñ Touba gi ci ndigalul ndogu yi noonu mu ko waxee rek moom ñoo ngi siyaare sëñ Abdou Rokhaya Fall jëwriñu sëñ Mor Talla di siyaare sëriñ Cheikh Mbawar mi nga xam ni mooy jëwriñu sëñ Aliou Fall Mbawar saa ñu umee ñu ànd ak njaboot gi yëpp di ànd ak Baye Fall yi di indi ndogu yi ci ndigal li nga xamante ni Serigne Touba moo ko joxoon maam Cheikh Ibrahima Fall saa su nekk ba nga xamante ni weer wi. gis nañu ko lañu koy commencé ba bañ koy wari xanaa nag di soññ mbokki taalibe yi ci biir réew mi ak bitim réew yëpp xamal leen leen liggéey bu maam Cheikh Ibrahima Fall bi moom nekkatul lu ñuy wone dañu koy soññee rek bëri góob diw la Cheikh Ibrahima ko wax boo tegee sa loxo mu dem boo ko tegul mu dem. weeru koor nag kenn ku nekk xam na ni ci lislaam maam Cheikh Ibrahima Fall am na ci loo xamante ni lu rëy la ba képp ku ci bëgg a jëf Cheikh Ibrahima Fall ngay roy ñoo ngi nii toog ak sëñ maam moom Serigne Cheikh Fall Mbawor mi mu tuddee maam Cheikh Ibrahima Fall. moom soxna Ndiaye moom sëñ Mor Talla Fall bu ñu yenoo dab yi paaleen ànd ak moom ak Baye Fall yi ak njabootu Cheikh Ibra gi di tudd yàlla ba agsi ci kër Serigne Touba gi jébbale bool yi àndaat jëlaat yoon wi àndaat ak Baye Fall yi yëkkatiwaat turu yàlla wi jëmaat paaleen noonu rek lañ ko fas yéene di ànde ci ndigalul Serigne bi ñoo ngi ñëpp di ñaanal njabootu Cheikh Ibrahima Fall gépp la ko commencé ci Serigne Cheikh Jëmb mii jëwriñ ji yàlla na fi lool Fall ñu yàgg ànd moom liggéey bii ak bunti kër Maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridina asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu jërëjëf. laa ilaaha illallaah laa ilaaha